vraiment ñun ñu kontaan nañ ñun waa commune bi ñun seetlu la commune yi en tout cas ñun kontaan na trop parce que électrification dafa am njëriñ loo xam ne bon lu bëri bëri la njëriñ yu bëri la bon parce que d'abord affaire sécurité mu ci bon jigéen ñi si boo amee frigo mën ngay dugal sa ah même cette année weer koor affaire glace dañuy sonal loolu gara kii courant moo amuloon bu fekk courant am na mun nañ defar suñu classe suñu bopp bon suñu élèves yi bu fekkee am na éclairage mun nañ jàng hmm? loolu yëpp ay njëriñ yu bëri bëri bëri en tout cas moo benn vraiment affaire bi ñu kontaan ci loolu. bon xanaa euh, njaxatal en tout cas bu kontaan la donc euh, kontaan bu rëy lañu am. que ñëpp xam nañu vraiment njëriñ euh, courant lu mu am si vraiment si doomi aadama dina créer ay emploi parce que surtout bu ñu demee si wàllu jigéen ñi dañuy liggéey si seen si seen kii si seen biir parce que dañuy def ay produits yi nga xamante ne euh, élé kii énergie kese moo koy mën a liggéey ci wàllu frigo ci wàllu yeneen activité yu mel noonu. très bien tàngaay boobu tam jigéen ñi mun nañu jaay glace mun nañu jaay jën te jeunes yi tamit mun nañ ci profito bu ñu jàngee yeneen métiers yu mel ni soudure ñu mën a installer seen atelier yi donc bokk na si en tout cas si réduction du taux de chômage